rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboolem ku ñuy top ci àdduna si yëpp ci réseaux sociaux yi ci bis bu tedd bii nga xam ne ak barab bu tedd bi ñu ne di leen siyaar di ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi yàgg gu wàll ak wér ba naa lim naa la maamam ji mu yeggale yëpp ba teg ci yeneen tañ ànd ko moom tey nag euh, dañoo am xéwal gu mag a mag gu toll nii euh, mu xadamatul xidma nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey jumaa ji ak yeneen i liggéey ci dëkk bi dalal association des écrivains de la Mouridia nga xam ni kuréel la goo xam ne bi mu sosoo yàggul waaye li ko tax a jóg mooy bi mu gisee ni jamono dafa dox ba sëriñ bi ñu gis ñëpp gisandoo ni mënatul yam rek ci réew mi cosaanoo wala xeet bi mu cosaanoo adduna sëpp ko war a jëriñoo mu wër adduna sëpp wër ci làng yëpp wër ci làkk yëpp ñu gis loolu gis tam ni kenn ku nekk am nga yéeney bind te ku nekk lu nekk ñu ngi koy bind ñu xalaat ñu nañ nañ jéem a nos euh, ak kuréel goo xam ne gii dañ ci nos suñ bopp boole ci suñ bopp nga xam ne léegi dañ mën a tasaare euh, njàngaleem sëñ bi ak njëriñal sëñ bi ci lakk yu wuute danañ mën a tam taxawu képp koo xam ne kii da ngaa bëgg bind ci sëñ bi am nga yéeney bind ci sëñ bi ñu joxoñ la fooy dem seeti référence yu loolu moo waral association des écrivains de la Mouridiya bi nga xam ne am nañ xalaat bu nekk rek ñu daal di ñëw Touba euh, xamal ko sëñ Cheikh Mbacke mii nga xam ne ku ko xam xam ne ci mbind ak gëstu ak jàng ak jàngale lay xëy ci lay gont ci lay reñaan biñ ko ko waxee moom itam mu rafetlu ko lool daal ñu yóbbu ci sëñ bi ci saasi bi ñu yóbbu ci ñu leeral ko sëñ bi sëñ bi tam ku xam na ko ku xam na ko ci njàng ak ci xam-xam ci gëstu mu daal di ñu ci jox ndigal daal di ñaanal ñu daal di dem ci loolu nag la ñu doxee diir bu gàtt rek yàlla boole ñu ak Muxaddamatul Xidma mi jaar ko ci sëñ euh, Mamadou Bachir mu sëñ Abdou Khader Muxaddamatul Xidma ci màggal gii weesu rek ñi fekk ñuy def ab exposition fii ci jumaa ji ñu yaatal ñu fi yaatal yéeme woo xam ne bi wane nañ suñuy téere def ay waxtaan ba nga xam ne foofa la ànd bi tàmbalee tey jii nag lii ñu fi dajalee nga xam ne dañoo yëkkati ay ay téere ab lim ci ay téere di leen ko jox ñu mën ko dugal seen makkatu makkatub dañuy dañuy dañuy dañuy wéel ànd googu rek di di di fas yéene nag àll googu di gën yaatu lépp loo xam ne daal dafa jëm ci li ñuy def ñun nga xam ne mooy gëstu ah, ak bind ci làkk yi wuute lépp luñ ci soxlaa ñoom jekk nañ pour pour àll ko ñoom ci liggéey bi lépp lu ñu woo ci fànn gu mën a ci liggéey bi itam jàppale ñu la jàppale seen i mbokki taalibe yi daal la ñoo xam ne yi yàlla fii la ñu féetale ci walla mbind mbind ak ak siiwal pare nañ ko pour ànd ànd ko génn association bi nag kon noonu la tëddee ñu ñu ngi xamal ñëpp daal ni képp koo xam ne kii da ngay bind ci sëñ Touba wala ci mm, waa kër sëñ Touba wala ci mag ñi mu defar wala ci yoonu murit képp ku ciy bind association bi ubbil la ay buntam boo ci ñëwee moo xam ne ci arab bind wala ci wolof wala ci français wala ci anglais wala ci làkk woo mën a bind ah nañ ko ànd ak yow bureau bi nag ñu ci ëpp ndakaaru lañ féete. yooyu man man maa maa fii sëñ Cheikh Mbacke mii nag mooy président d'honneur bi nga xam ne moom moom moom mooy suñ jëwriñ ci liggéey bi moom la ñu sëñ bi booleel moom la ñu àndal liggéey bi kon daal loolu moo indiwoon tey daje bi fii ci euh, jumaa ji mag yi ci kanam Muxaddamatul Xidma doolu leen indil euh, téere yooyu di ko dëgërale suñu ànd di ñaan yàlla ci daraje Serigne Touba suñu ànd bi yegg fu kawe suñ jot te lépp nekk ci ginnaaw sëñ Mouhamadou Mountakha wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala kon sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ndokkeel ci yoru màgg wi ci bisu màgg bii ci barabu màgg bii di barabu Cheikh Ahmadul Xadim eh, tey nag ñu am mbégte lool ci ñëw fii ci barab bi nga xam ne Eh, waa Moukhaddamatoul Khidma ñoo koy taxawu muy muy jumaay Cheikhul Ahmadul Khadim eh, ñu ñu invité ci académie minel bal minel bal Khadim bi nga xam ne dañ ko sos ci ndigal Cheikh mu Muntaqa waaye ci taxawaayu Cheikh Mawal Abdullah waaye ci liggéey bi nag ñu dénk ko eh, Cheikh Ahmadul Khadim mi mu suñu Muntaqa ak ñu ñi nga xam ne ñoo ne ci gannaawam di ko taxaw sëñ Moustapha mii ci sama wet di bokk ci liggéey bi euh, kon ñu ngi leen di sant bu baax di am mbégte ci taxawaay bii ak woote bii ngeen wootey ci fekkee liggéey bi mu doon léegi mu doon loo xam ne euh, ñëpp ko war a xam ndax tey euh, am na am na lu ngeen wane lu ngeen wane lu baree bare ci liggéeyu sëriñ bi ndax taxawaay bi nga xam ne moo xam xel mi ngi ko taxaw ci ci ci ci jumaa ji wala ne na jàkk du julli rek dem jàkk ku fa ñëw war nga faa dund sa diine war nga faa xamal sa diine noonu la woon jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam noonu la saxaaba yi daan jëlee ci moom ci jàkk ji ahlu suffa noonu lañu daan jëlee ci moom ay durus fii raxaabil masjid kon ba fi mu ne nii tey boo demee ci jumaay jàkk jàkk ña nga fay joxe ay dars loolu nag kon Cheikh Abdou Khadim dafa niroog yonent bi sallallahu kon jumaa ji tey loolu taxawaay bu bu ko daayira bi taxawee ci yëmuñ ci lépp lu lépp boo xam liggéey ci yoon ña nga cee tàbbal seen loxo euh, euh, jumaa ji da cee gën a fés euh, kon loolu di liggéey bu am solo waaye rawatina nag koor gi nga xam ne ni nga xam noonu la ñuy defee ay waxtaan ci ci ajuma ju ne di di di taxawee mbooloo mi di di taxawee sàpp yi di taxawee lépp lépp lu rôle boo xam ne jumaa laaj na ko ñu ñu ji taxaw kon no rawatina nag koor gi nga xam ne tey bis yëpp dañ koy dundal ci diine di fi def ay waxtaan waxtaan yoo xam ne lépp lu waay soxla ci sa diine ci wàllu yu mën a doon diine bu ñu ko xëy yaatu na addunaa ngi ci al alaxira ngi ci ni ngay dundal sa diine ngi ci loolu lépp dañ ko fi waxtaane ah, rawatina nag kon ba tey euh, teraange nga xam ne muy doog yoo xam ne dañ dañ koy def bis bu ne bis bu ne teraange da nga xam ne ku fi ñëw ku ne dañ la teral foo mën a bàyyi ko ak mbooloo mi bàyyi ko ci dëkk bi nga xam ne dañuy ñëw lépp fi lañ baaxoo ñëw di fi ndogoo lépp ñu ñu gàddu ko loolu di liggéey bu rëy di dellu ci nag bëggu sëriñ bi ndax sëñ Tuubaa bi mu fi nekk ci njaareem kenn ku ne xamoon xamoon na ni mu ni weer bi bu ñëw maa ngi dégg sëñ bi mu ne njaareem de ku fi bu sëñ bi masaan bu weer ko masaan ñëw fu waay fu waay nekk fu ne boo ndab dana la fekk ay teraanga la fekk kon tey loolu lii kenn ku ne xam na ne bëggu sëriñ bi la kon bu ngeen ñëwee fi wetam dëgg la ña ngi ko fay def ni nga ko daan defee ñi ngi koy ñi ngi koy def waaye nag fii fi wetam nag fii mu tëdd nii ngeen di fi ngeen di ko fi defal teraanga yooyu tey kon mel ne la kon loolu tawfeex ju leen sëriñ bi jagleel la kon duñ man loolu ñaan euh, sëriñ bi nga xam ne moom moom la ñuy liggéeyal te buñ ne moom liggéey mooy lislaam la ñuy liggéeyal mu mu sàmm leen aar leen euh, taxawu leen ba fépp fu ñu bëgg liggéey bi àgg fa mu àgg fa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ومنزل الشفاء والدواء